asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar tey nag ñu am mbégte seet si woon euh, moo du mbay nekk président de association des transporteur et chauffeurs euh, de Touba ñu fas yéene waxtaan ci ay tomb yu am solo yoo xam ne nii dafa concerné dëkk bi waaye dafa concerné actualité au niveau Touba ak national duñ def la du jox ko kàddu gi mu nuyoo ñu door a dugg ci laaj yi ak tontu yi kon sëñ Modou ñu ngi lay nuyu di lay ziar. Serigne Abdoulaye Faye. Euh, effectivement man la Modou Mbaye président de l'association des chevaux et transporteurs urbains de Touba président du GIE regroupement des chevaux et transporteurs urbains aussi de Touba ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di rafetlu seen teewaay fii ci kër gi. sëñ Modou gannaaw nuyoo yooyu am solo yooyu xam naa ne euh, li ëpp ci waxtaan wi ci wàllu transport lañ koy joyal laaj bi ci jëkk mooy jamono yi passé lu matut ñaari weer ci ginnaaw yéen a ngi bokkoon ci ñi xëccoo lii di njiitu chauffeur ak transporteur bu tubaa yàlla dogal na ki ngeen ko doon xëccoo moo le moom moo far jël loolu nga xam ne moo di toogu googu noonu est-ce que yéen a ngi am xemmamteef loolu ngeen jiite ko ba tey waaw wala déet. effectivement ñu ngi continuer di ci liggéey ba sax taxawal nañ ci benn euh, coalition ànd suqali transport. te Mor Talla Gueye jiite ko parce que ñun aussi moom lañ doon soutenir ci élection yi euh, mais loolu moom ba léegi ñoo ngi continuer di ci liggéey. Hmm. élection yi ban ñaata mandat ki fois cinq ans ngay présenté après amatoo droit amoon na benn amaat na nii benn donc euh, bu ko jeexalee jeexal na. moom bokkatul normalement en tout cas dina def cinq ans yoo xam ni day soog a commencé incha allah. kon yéen ñoo ngi ci liggéey boo xamante ne bii. Euh, te sax dañu yem ci bàyyi ko noonu rek ah non dañuy continuer di surveiller di xool parce que lépp loo xamante ne bi mu ngi ci te fekk waru cee nekk du cërëm ñun en tant que opposant lépp lu ñu ci war a def dinañ ko def incha allah. jërëjëf ci tontu laaj bu njëkk boobu beneen laaj bi ba tey dañuy desandi ci secteur transport euh, fii ci Touba nekk na secteur boo xam ne ni bëri na ay jafe-jafe yaakaar naa ne ci jamono yi nga xam ne ni yéen a ngi def campagne ci ngir jiite. li nga xam ne moo di euh, président regroupement des chauffeurs et transporteurs de Touba am na ay promesses yoo xam ne nii candidat yëpp ku nekk waxoon na ko muy jéem a régulariser secteur bi teg ko ci yoon waaye mel na ni bu ñu defee benn jàngat euh, dige yooyu gisaguñ ci dara ba jamono yi am na ay coow sax yuy jolli ci këy oto yi nga xam ne ni amuñu ay këyit fii ci Touba euh, en tant que président de l' association boo xam ne ni da ngeen di yëngu ci wàllu transport loolu. ban jàngat ak ban gis-gis nga ci am ci coow li nga xam ne nii jamono yi yëngatu na rawatina ci oto yi nga xam ne ni amul ay kayit fii ci Touba. jërëjëf L ñu ngi lay euh, L24 ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci question bi c'est vraiment important ndax euh, campagne moom dafa yomb promesse euh, mais c'est très rare nga gis nit ki dem ba gagné respecter normes yi. Euh, en tout cas bu dee ñun nag ci nga xam ndax lee on on parle de du transport urbain mais lii nag bu ñu waxee ci urbain nga xam man loolu avant élection yi aussi man fekkoon na ma yore ci ndomb tànk yi ma ci yore di ci liggéey ak euh, lu ma 19 garages yoo xamante ne bii macha allah euh, suba rek incha allah ci ci ci ci ci le premier bi premier mars bi am nañ ci ab réunion boo xam ne incha allah dinañu ko def fii ci bureau bi. Euh, ñun nag li ñu gëm mooy euh, transport dañu ko war a organiser ànd ci ak état loolu nag dañu ciy profiter di ci gërëm suñu maire de la euh, ville de Touba muy monsieur le maire Abdoulahad ndax échanger nañu ci gis nañu taxawaayam ci lu bare bare bare bare bare ba bi ñu mujjee daje barki dem li ma ko wax mooy monsieur le maire man de wax dëgg yàlla dafa dafa bu ma amul lu ma gënal ngay wax parce que dafa bari lu muy def loo xamante ni bii da ci dut boole communication ba léeg sax da ngay dégg ay nit ñoo xam ne dañuy jàpp ne euh, liggéeyul wala lii wala lii wala lee te fekk du loolu euh, ci suñu secteur ci wàllu transport mu ciy dox dox bu am solo boo xamante ne bii loo ko ci wax benn kàddu la la ciy wax muy man de maire laa njaaxaanaay lay tëddee man daal ñëpp laa bokk yemale ñu koy féliciter ci kàddu googu te di ko ci encourager parce que loolu mooy rôle lu njiit ndax euh, boo nekkee maire mu ngi mel ni nga nekk président de la république mu ngi mel ni nga nekk président conseil départemental et gens obligatoirement di nga am ñu néew doole am ñu am doole waaye moom ñëpp la yemale loolu ñu ngi ko ci encourager monsieur le maire Abdoulaye Ka te it ñu xam ne ci wàllu transport bii ñu nekk bari na ñoo xam ne ñu ngi naan borom oto yi. dañuy sàcc dañuy def lii dañuy def leen mais bu dee ci wàllu transport urbain oto yi nga xam ñoom ñoo fi nekk teewul nag ñu ngi dagaan ci kàddu sëriñ bi ak ci barkeem di ko ñaan aussi ci état mais bu ñuy wax état nag dañu koy jaarale ci maire pour réforme ñu mën am oto yi gën a confort mais taxul nag kenn koo xamante ne bii présentement ni man ci 19 garages yi bokk ci man ci ñi ci liggéey kenn koo xamante ne bii. Euh, mu ngi ciy def lenn lu naka su noonu man xawma ko te tout le temps ñu ngi woote réunion ñu ngi leen di sensibiliser ci ay points yu bari point yi mooy nu ñu def ba gën a respecter d'abord agent yi nga xamante ne bi dañuy bokk di nekk ak ñoom ci kaw tali bu muy police ak gendarmerie ndax ñooñu fokk ñu jox leen cër ndax ñun la ñu fi nekkal ñun la ñuy xëyal ñun la ñuy gontal léeg dama leen di tooñ naa leen ay doomu bàjjen lañu parce que mënuñu dem sans ñun ñun aussi mënuñu dem sans ñoom Euh, bu loolu jàllee aussi euh, ñu comprendre ne système transport ci Touba système la boo xamante ne bi bu ñu ko bëggee régulariser d'ailleurs ñu ngi ciy waxtaan ba semaine passée def nañ ci réunion ci préfecture réunion boo xamante ne bi euh, commune mu ngi foon ak le sous-préfet police gendarmerie ak ñun responsable yi ci dëkk bi ci wàllu transport ñu commencé waxtaan bu am solo boo xam ni nan la ñuy def ba transport urbain ñu gën ko moderniser mais modernisation boobu nag man bokk na ci question yi ma posé nga xam directement moom dama ciy sollicité euh, état bi euh, muy bu ñu bëggee problème mu Touba ci cadre transport mu régler définitivement lépp lu ñu ciy def dañuy fexe ba di ko généraliser mais benn dëkk benn loi cim réew mënoo permettre ki bàyyi kee ndax donte ne ñun ñooy responsable oto yi. am na ci oto yoo xam ni bu dee dañuy waxante dëgg rek bu ñu sañoon ñu gën a moderne par rapport ak ni ñu mel mais am na loo xam ne ñun mëna lu ñu ko suñu bopp donte ne ay opérateur lañu mais état moom moo ko mën oto yi nga xamante ne bi dañu naan Touba am na oto yu amul kayit man lee man man xaw ma oto bu amul kayit ndax man du ma du du ma douane du ma police du ma gendarmerie mais li nga xam man leer na ma te ma xam ko mooy bu fekkee ne oto bu amul kayit dañ ne am na ci dëkk bi li ma d'accord bu ñu demee ba di ko fi jëlee dañuy def maanaa waxtaan nag ñu ngi koy def après Proxaan peut-être dina defaat yeneen yeneen jéego mais man li ma d'accord man sama xalaat mooy nañu recenser oto yi nga xamante ne bii nañu nañu d'accord ci ay ci point ci oto yi nga xam amuñu këyit que muy taxi muy particulier muy oto urbain yàlla nañ njaga njaay sax wala bus mais boo amul këyit ñu joxe délai boo xam ni bu buñ ca yeggee jëmmi Tuubaa ci boppam benn oto bu amul këyit dootu fi daw mais nag boo bëggee ñëw ne auto urbain bii amul kayit dafay jóge taxi bi amoo kayit mais mën nga resté wala taxi bi amoo kayit danga nga fiy jóge auto urbain bi amoo kayit mais mën nga mën mën mën mën nga mën nga resté loolu du regle problème lu dul yoon baaxul mënul baax kon nañu bokk jox ñëpp délai boo xam ne buñ ca yeggee ñu éliminer ko mais du ma mës a d'accord nag ci ñu éliminer kii bàyyi kee te ñu bokk benn atte boo xamante ne bii ci li ñoo ci ñoom li ñu wax nee nan am na yu baaxul man nag wax dëgg segam du ma police loolu mënuma ci mënu ci wax wax bu sori te duma ma yoruma aussi logiciel boo xam ni day vérifier loolu même bu ma ko yoroon borom oto yi duñu ma jox seen i carte grise waaw xam naa côté boobu fi la ñuy desandi ñu ma def benn analyse benn jàngat bu ndaw ci euh, côté bu dafa xaw sensible muy oto yi amul kayit ndax le système RIM RIM doo ko dégg fenn fu fii ci Touba te itam boo xoolee ci wàllum insécurité bi nga xam ne ni jamono yi lëmbaaje woon na dëkk bi police gendarmerie def nañ ci liggéey bu solo xam naa dinañ ci ñëw euh, li ëpp ci oto yi nga xam ne nii xëy na teg nañ leen loxo ci yu demee noonu ay oto yu amul ay kayit la damay joxe benn misaal ci chef de gang bi nga xam ne jàppoon nañ ko Mbàkke jour bi ko waa police di jàppe buñ sukkandikoo ci rapport bi moom oto bi mu yoroon amul benn kayit te moom depuis 2013 yorul permis permis am jeex na kon yaakaar naa ne nekk na loo xam ne nii c'est définitivement ñu jëlee ko ci dëkk bi bu ñu waxee nag ñu ne peut-être dëkkub yërmande la mais est-ce que yërmande bay dem bay lore donc kon euh, ci gàttal oto yi amul kayit moom am na fi. tudd ko jamonoy sëñ Sidi Muxtaar tudd nañ ko oto yi amul ay kayit bu indi woon fi coow wax nañ ne sax léeg-léeg ay. borom mi tur yu mag ñoo fi indi oto bëgg leen a fay jëlee am ñoo xam ne ni dañ koy xeex ndax dañ cee am et cetera nekk na loo xam ne ni daal yaakaar naa ne sëñ Modou euh, jar naa defat ab euh, taxaw seetlu dañuy desandi ci transport urbain bi ba tey ndax bu ñu nee transport urbain fii ci Touba c'est diggante Mbacké Touba taxi ak Tata waaye ñu ëpp ci askan wi ñu ngi xaw a méttitlu wala ñu ngi ñaawlu jëflante gi nga xam ne nii damay indexé Mbacké Touba yi ñu ngi koy jëflante ak askan wi. la ci jëkk mooy ñi ci ëpp ci xale yi ay emprunté yi ay xale lañ war a jàngi jàngiwuñu amuñu comportement boo xam ne ni xëy na war nañoo traité nit ñi chauffeurs yi kasaalika itam nekk na problème bu ràññeeku fii ci euh, transport urbain bu Touba loo ciy wax en tant que ku nekk ci secteur bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ni askan wi ñu ngi koy jànkante te waa oto yi ñoo leen koy teg. jërëjëf euh, Serigne Abdoulaye Faye bu dee ci Mbàkke Touba yi nag xam nga bon samay samay samay kilifa fa nekk puisque man du ma seen président du ma ci bëgg a sori mais en tout cas am na benn remarque bu ma fa def dëgg la li nga wax bari na ay xale mais boo xoolee secteur transport dafa mel ni kër gu amul bunt ku mu neex ñëw dugg loolu nag problème la boo xamante ni bii euh, responsable yi am nañ ci euh, wàll mais chauffeurs yi aussi am nañ ci wàll ndax bu njëkk boo mosaa soxla apprenti kilifa la ko jox moo xam magam wala xarit boo xam ni bu ñu xam la wala ndeyam wala papaam nga xam ne yow da ngay xam ne kii tey bu demoon ba def la loo xam ne jar na sax mer balaa ngaa dem bay tàggoog moom da ngay mën a consulter ki la ko joxoon mais léegi loolu amatul da ngay toog ci grand place yi fi ñuy ndekkee nit ki ñëw sollicité la nangam nangam nga ne ko ñan dem mu def ñaari voyage ñett ñu former ko bu mën a encaisser commencé nekk apprenti am na ci ñoo xam ni dañuy am sens jaare ci bu am métier di liggéey. mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ni jafe-jafe yi ngay dégg ci biir secteur bi ci ñooñu lay jógee ndax nit koo xam ne yaruñu ko seen kër mbedd mi euh, mën na am sens mu ñëw ci yaru mais mën na am sens aussi mu ñëw ci du yaru léegi nag nit ki yaruwul nag ci lépp lu muy def reewande boobu def ci répercuté que muy ci transport bi ci menuisier ci maçon ainsi de suite ci question yëpp mais loolu nag ñun moom la sëñ Abdoulaye doon wax rek lu bon moom tey bu ko ñëpp bëggoon questionner du tax mu doon lu baax ñun moom d'accorduñu ci lu baaxul ñun daal li ñu bëgg nit ñëpp maa si xam ko mooy man Modou mbay day bu ma sañoon transport Touba dina bokk ci transport exemplaire yi ndax dëkk bi yelloo na ko dayoob dëkk bi toll na noonu mais nag suñu problème mooy njiit yi ñu amee da cee bari ñoo xam ni dañuy incarner loo xam ni seen expérience agul foofu te nit li fekk yaa ngi gis sama bopp di waxe manum lëmm rek pour nga def lu sotti ça pose problème loolu nag bokk na ci jafe ji jafe-jafe yi nga xamante ni bii xëy na bu ñun waa transport bu ñu amoon xam-xam bi nga xam moom la monsieur le maire Abdou Lahad am ci di wàcc boppam ba tolloog nit ñi monsieur le sous-préfet Mansour Diallo am ko donte na il est représentant de l'État ici à Touba mais teewul réunion bi lu kàddu yi débordé débordé débordé day wàcc boppam ba tolloog yow de même que la police ak gendarmerie. je je vraiment euh, jot na tey ñun li nga xam dañu ñuy tudd di tudd baatu responsable ci dëkk bu toll ni dëkk bu tubaab bii vraiment ñu xam ne fii kenn doonu fi dara fii moom lépp Serigne bi la quoi te it nit ki li fekk yaa ngi koy won ne ndax am na nit ñoo xam ne loo bëgg a régler ci ñoom def ko ci dal rek mais am na ci fët fët yoo xam ni ak manum lëmm am na ñoo xam ni mënul tax nga orienté kenn boo doon sàmm ay nag mën nga yor fukki yet dégg mën nga yor benn yet mais bu dee ay nit nit ku nekk ak façon bi nga xam moom ngay doxaleek moom loolu moom du ñu caan bu dee ci Touba aussi transport bi demee na noo xamante ne bii bu ñu ko bu ñu ci waxut bu ñu ko régulariser wul bu ci état bi aussi waxul dinañu dem ba désordre bi gën a bari naam am na mais day gën a bari ndax boo xoolee fii ñu toll nii nii nii nii nii. Euh, ñu ngi fi wax ay waxu insécurité ñu ngi fiy wax ay waxu oto bu oto bu amul kayit ñu ngi fi wax ay problème yu bare bare bare yoo xamante ne bi lenn mënu ko régler lu dul monsieur le maire woote walla sous-préfet woote mooy comme lii ñuy def mais muy nekk ay ndaje yoo xam ni dafa war di bari mais bu fekkee ne aussi nag dañoo bëgg di nekk ci nii nii nii nii nii ñii féete fii di xëj jëm fee ñii féete fii di xëj jëm fee aussi dara du mos dara du mos a sotti te it dëkk bi toll na foo xamante ne bii maanaam askan bi soxla nañ ko leen taxaw ndax boo xoolee clients yi ñoom suñu nawle lañu yoo xamante ne bii wax dëgg yàlla man léeg ma gis ñu traité client ci façon traité boo xamante ne bii man ci sama bopp dama ci am lu ma metti moo xam nit ki yéeg yi tegagul tànkam nga fëgg su dee mag léeg mën na daanu moo xam nit kiy wàcc benn tànk bu wàccagul nga fëgg bu yéeram lonkee cooto bi mën na daanu wala mu ne la may ma fii nga continuer moom bu foo xamante ne bii jëmu fa woon loolu lépp ay problème la yoo xamante ne bii surtout bu dee événement da nga gis nit koo xam ne ci dëkk bi nga dëkk war a dawal yërmande nit ki am na ci ñoo xam ni seen identification ci Touba poto bu xong bi la wala butiku nangam wala wala wala angal nangam bu duggee ci biir oto bi mën na bañ di gis coin yi léegi nag yow mi nga xam wax dëgg yàlla yow yaa fi dëkk donte ne da ngay liggéey mais war nga ci jaayante ngir sëriñ bi ci nit ki bu la nee barab sàngam laa jëm loo mën sa kémtulaay kattan nga def ko ba boo fa yeggee nga nga nga nga nga wàcce ko parce que li may wax chaque jour mooy nañu xam ne clients yi ñoo ñu fi bàyyi mais ñun aussi clients yi moo ñu fi bàyyi segam mënuñoo tàggoo nag nañu koy rafetal xam naa li ma ci appuyé mooy noonu nga ko waxee vraiment des fois ñu gis ay comportement yu déplorable ci euh, transport bi xanaa dafa gën a fëse ci Mbàkke Tuubaa mais même tata sax am na fa ndax euh, xam naa ne yeneen jataay sax la ndax euh, mbirum transport ci Tuubaa du benn jataay suñ ko mënee chaque mois dinañ leen di yel defal benn jataay boo xam ne ni dañ ci yel di boole sax ay reportage ndax dara gënu ko ëpp importance ndax secteur la boo xam ne ni moog dunduk doomu aadama ñoo te am na ay jafe-jafe tey yéen ñi nga xam ne yéen a ci yëngu yenee ay principaux euh, euh, responsables yi kon yaakaar naa ne di ci waxtaan ak yéen ngeen di yee askan wi di leen sensibiliser ñu desandi ci transport dañuy xaw a yaatal tuuti dem au niveau national jamono yi mel na ni ci wàllum syndicalisme ci wàllum transport au niveau national ñu ngi waajal ay jongante wala ñu ngi waajal changement ñu dégg ci menn mbër wala koo xam ne ni taxawaayam ràññeeku na ci muy Alassane Ndoye yéen ñi fare fii ci Touba wala kuréel gi nga jiite ban taxawaay ngeen ci am ak lan nga gis ci candidat boobu noonu. jërëjëf Serigne Ablaye Alassane Ndoye nag day responsable national boo xam ni dafa jëf lu bari ci Touba ndax suñu xalif général bu baax bi di sëriñ Alaaji Baara Falilou. bi ñu fi demee ba transport bari ay coow ki fi nekkoon comme président Alaaji Gay bàyyi ba coow li metti lool moom la sëñ bi woolu woon mu ñëw mu ne ko lijjantil ma loolu moom moom moomu euh, moom Alassane Ndoye keroog moom moo wax di lijjanti di maslaak nit ñi ba yëkkati garage bi teg ko ci loxo Idika amul élection bi ñu fi demee aussi ba nga xamante ne bii Euh, sëriñ Saal moom sëriñ Alaaji Baara mii tey jote naak idika mii te ñu nekk fii di tiirante ay balu fetel fii ci biir gendarmerie bu Touba bii ku ne gis na taxawaay ba mu ca def am na ay xale yoo xamante ne bii amoon nañ fii problème ci Mbàkke seen digganteeg ay ay ay ay nitu xëy na duma ci jaar directement mais ci maalu oto lañ leen tëj dencoon ba yàlla dogal ñu jaare ca faatu ku ne gis na taxawaay bi mu ci taxaw ak leneen ak leneen muy assemblée générale muy ngénte muy lu mu mën a doon xeebul daray kenn te au niveau national aussi gis nañ mu décréter fi ay grève gis nañ aussi mu liggéey fi liggéey yoo xamante ne bi ci wàllu syndicalisme depuis bi ñu commencé di ko xaw a ignorer mu toog ça des années euh, boobaak fii may wax ak yow ni kenn koo xamante ne bi gisagun na résultat bu bu bu benn transport Euh, moo xam transporteur moo xam président regroupement moo xam ku mu mën a doon lu mu fi réaliser au niveau national nag laa amut te transport aussi duñu ko bàyyi ndax ñun loolu la ñu am comme métier ndax bu dee ñun ci suñu commune li ñu fi bëgg ak li ñu fi bañ moom duñu ko diis kenn Serigne Touba lañu koy diis mais au niveau national dañoo yore njaboot yoo xam ni dañuy gën dañu dem fu nekk kon nag soxla nañ responsable syndicat boo xamante ne bii nit ñi dañ koy reconnaitre état def koy reconnaître te Alassane Diop ñëpp ko jox cër ci ak mbaaxam ci yaroom ak oyofam. léegi loolu nag bu amee ñuy préparer congrès boo xamante ne bi jàppaguñu gu dat mais en tout cas ñu ngi ci waajtaay yi ñun il faut ñu fësal suñu kàddu ci ñu xam ne ñun ñii nga xamante ne bi ñun ñoo jiite. GIE regroupement des chauffeurs et transporteurs urbains de Touba ñoo ngi ci ginnaaw Alassane yi di ko jàppale ngir lii ñu la wax suñu dara lu jëm ci Touba lu mu xeeb amut nit nag bu fekkee ne dafa jiite loo xam ni su ko neexoon diis te diisul bu demee ba soxla te yow heure bu sa bët musaa xong boo soxlaa mu ñëw taxaw ñun moom taxaw nan te pare nan pour soutenir ko ci li mu nekk. donc dañuy des euh, ci euh, question d'actualité ñaar la ba ci jëkk wax nañ ko léegi muy ci dëkk bu tedd bi di Touba digganteem ak Mbacké jamono yi ñeenti weer yi ci ginnaaw ñàkk kaaraange yi lëmbaaje woon na fi lool waaye gis nañ ne jamono yi police ak gendarmerie def nañ ay liggéey bu am solo. ba teg loxo ay def defkatu ñaawteef ay oto yu amul këyit ay sinébar yaakaar naa képp kuy seetaan information gis nga bilan bu am solo bi ñu def ginnaaw bi ñu lancé opération sàmm suñu kaaraange en tant que citoyen bu dëkk Touba naka nga jàngate loolu ak euh, ban soulagement nga ci am. Euh, xanaa sant rek barki dem rek maa ngi koy wax euh, commissaire Basirou Sarr mooy commis mooy commissaire police spéciale de Touba. nee naa ko li ngeen di def boo leen ko xamee boo ko xamut askanu Touba ñëpp amel nañ leen jukkal ndax Touba léegi village la woon léegi dafa dépassé village commune bii ñu ko def sax jàpp naa ne Touba dayoom dépassé na commune ndax dëkk boo xamante ne bii bu ñuy tudd dakaar di ko tudd dem nañ fi ñu toll nii ba invi ba installé fi ab commissariat ak yeneen ñaari poste police muy ndaamaatu ak guy mbin te taxul mu xaaj booy doy seen effectif bi toujours dañuy manqué ay personnel loolu Touba toll na foo xamante ne bii sàmm sa kaaraange boobu noonu ñu def opération yi ñun dañu cee kontaan en tant que responsable ndax tey bu dee ñun ci suñu côté ñun chauffeur bu ñu jàpp nga nekk ci lu légalul par exemple nga am sa feu de reculé bu tàkkul wala sa signal wala sa stop wala jean wala lumière bu ñu la ci jàppee immobiliser la ñoom ci li ñuy enregistré ci li ñu jàpp lay bokk mais bala nga faa jógee wala amaan bañ la cay teg boo fa jógee yow di nga ko defari wa ilaa bu subaa boo tegowaatee ci tali bi bu ñu la jàppee defaat noonu bu dee kiy jaay sineebar bu ñu la jàppee nga yor ko ñu tëj la ñu ñu ñu yóbbu la fa ñu fa ñu koy lijjante loolu seen diggante la ak tribunal te it il faut ñuy sàmm kaaraange nit ñi ndax ñoom loolu moo leen fi bàyyi ma bëgg nga xam ne man de man laa wax man personnellement ak mbooleem ñi nga xam man maa ngi déggante dégganteeg ñoom téléphone ñu ciy wax am na ci ay kilifa am na ci ay responsable am na ci ay ay ay ay ay citoyen euh, euh, sénégalais mais ñëpp ko rafetlu même ba ñu nekk ñu dëkkul tuuba ndax bu ñu bëggee dem ba réew moo xam ne yow da ngay dëkk nekk ci sa biir kër yore sa alal mais sa xel du dal bu njëkk kay alal ci mbedd nga ko doon tiite mais da ngay dem ba sa biir kër sax sañoo fee def dara. lu ñu wax ñu naan sàcc yi agresseurs yi insi de suite nangam nangam loolu nag dafa jot maanaa ñu jóg ci te loolu kenn mënut cee jóg ku dul état bi te état bi police ak gendarmerie moom mooy ay loxoom ci côté boobu ñu di leen ci féliciter mais aussi di leen ci encourager ci bu ñu ci mës a décourager bu ñu ci dellu ginnaaw man personnellement man moo Modou Mbaye d'accord naa ci ndax liggéey la boo xamante ne bi dëkk bi. Euh, léeg-léeg mu mooy comme ba fi sëñ Abdoulaat indee xaj yi rek nit ñi naan sëñ bi li mu fi indi mu ne xaj moom moroomu xajam rek lay jàpp <laughs> léegi nag ku fi def loo xam ni xëy na ñoom war nañoo jëflanteeg yow ah nga xam ne léegi yow yaa doon ndox ba yoon dal ci sa kaw rek amul leneen mais en tout cas ñun ñoo ngi leen ciy félicité di ci police di ci félicité aussi police nationale euh, ko waxee xam naa opération la xam ne nii bu ñu sukkandikoo ci ñoom euh, déclaration bi ñu def keroog euh, dañ lancé waat nañ ko pour deux mois encore pour defaat bilan bi donc beneen question d' bi day concerner képp koo xam ne nii ab citoyen ga mu mel ni jamono yi am na coow loo xam ne ni jolli na ci euh, camp politique bi muy troisième mandat bu président Macky Sall. mu mel ni jamono yi gis nañ ne débat bi posé wu waat na à travers tous les médias léegi euh, te moom génnegut pour wax ci lu leer nañ en tant que un citoyen sénégalais troisième mandat Macky Sall le président war na ko dagaan waaw wala déet bu fekkee waaw lan moo tax. Euh, bu fekkee ne waaw la bala ma cee ñëw damay indi sama xalaat d'abord. <laughs> <laughs> parce que gis nga gis nga bu dee ci côté troisième mandat man dama d'accord ak président ci position xam nga lu tax fi mu toll nii gis nga bu waxoon ne euh, troisième mandat bi man duma dem moom biir partem ci boppam guerre de positionnement bi day taxaw te bu waxee ne dinaa dem aussi léegi moom li mu war a liggéey du yegg te beneen bi sax mooy moom da koo wax mu leer nañ dene damay soog a gagné sama mandat dem amagul 6 mois wala amagul 8 mois mais euh, ci installation gouvernementale la nekkoon ak Jean bu ñu bëggee commencé wax lu jëm 2024 mais du ñu liggéey te moom dañu nit ñi nag bu leen neexee ñu ñu ñuy wër di wax mais président dañ ko fal pour mu liggéeyal réew mi il faut nit ñi di def ay différence moom rôlam du wax kantaan nag ñun suñu gis-gis ñun personnellement ci troisième mandat ci fii ñu toll c'est-à-dire nag des na ñeenti at mën na am euh, ay nouvelle génération wala ay surprise am ci diggante bi mais man fii réew mi toll nii man personnellement ci guddi yi ñu toll nii comme tey ji nga xam c'est le 29 février 2020 man gisaguma kenn ku mën a remplacer président ci siège bi mu toog waxuma amul de mais gisaguma ko man laa wax te am naa ci aussi benn xalaat. Sénégal bu ñu ko bëggee méngaleeg Europe wala Amérique wala dëkk yooyu suñu économie àggugul foofu suñu suñu suñu suñu suñu lu bari eggugul foofu te tey boo xoolee Ablaye Wade bi mu fi jógee son excellence président ñëw daanaka sa premier mandat dëgg la dinga nga jéem a liggéey mais fi nga war a teg sa tànk dëgg am na ci point yu bari yoo xam ni mën nga fësa ci ay étapes yu baree baree bare léegi bu fekkee ne aussi maanaam tey dañu bëgg boo ñëwee def ñaari mandat rek ñu yëkkati la sa moroom ñëw def ñaari mandat ñu yëkkati la loolu avantage yu ñuy liggéey ci gouvernement bi lay nekk mais du avantage u Sénégal loolu nag man sama gis-gisu bopp la bu dee nag jëmmi président en personne ci li ma leer man xam naa ne bëgg na Sénégal nit ku baax la te it lépp lu mu mën mu ngi koy def c'est-à-dire nag si tu président mu ngi mel ni rek yow mi nga xam da nga yor groupe de presse fu nekk nga envoyé fa nit ne ko géral ma barab sàngam ki am compétence mën na liggéey résultat am mais am na koo xamante ne bii euh, mën na bañ a def li ñu ko sant soit mu bañ ko maîtriser wa ilaa échec ñëw mu échec mais li ma xam man te jàpp ko mooy euh, dégg naa sax PM naan diggante président ak Macky Sall euh, ak président Macky Sall ak Sénégal. Euh, bu doon ab kii la ñu ngi jëm deux mille trente cinq man moom duma wax loolu mais en cas nañu bàyyi xel ci waxam boobu moom PM parce que bari na ay wax yu mu feex yoo xam ni au finish euh, dañu koy mujj gis man nag wax dëgg yàlla que mu bàyyi ak mu continuer mais li ma mën a xam daal nañu jàpp ne sept ans yu njëkk yi moom bokkul ci deux fois cinq yi loolu moom na ko Sénégal xam ndax nag moom en personne. dina bàyyi wala du bàyyi loolu moom leeruma mais en tout cas bu ñu fi demee booy insiste waat troisième mandat man ci li ma jàpp bu demee conseil constitutionnel dinañ ko ko valider la man loolu laa jàpp. sama kàddu yu mujj mu mujj mooy sant ñëpp gërëm ñëpp tey xam ne euh, ay ndaw lañu di liggéey euh, bu dee ci côté réew mi am nañ ci ay xalaat yoo xamante ne bii xëy na lu ñu def ci paket la encastré ko loolu nag. xëy na mënuñu ko wax ci média mënuñu ko wax ci grand place am na même suñu certain nit ñoo xamante ne bii sax mënuñu leen ko wax mais xëy na ñi mu gën a concerné muy borom réew mi wala nu ni mel ñu ko jege ñun tey ku ñu ci sollicité am nan ay secret yoo xam ni mën nañ leen ko wax lu baax la ci réew mi te baax na ci askan bi. di leen sant yéen presse bi vraiment secteur transport day milieu bu am solo boo xamante ne bii. Euh, tey ma jiite 19 garage nekk ci fii ci Touba ngeen ñëw seet si ma pour ñu waxtaan ci wàllu. Euh, transport Touba mais aussi ci réew mi mënuma def lenn lu dul sant leen gërëm leen ndax wax dëgg yàlla euh, képp kuy responsable bu ñu la dénk dékkee micro di la laaj danga nga war a am euh, fayda yi tontu ci question yi yow ci li nga gëm te man nag lii ma fi wax lépp lu ma gëm la lu ma dund la di gërëm ñëpp tey ñaanal bu baax Serigne Mountakha Euh, yàlla yàggal ko fi ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp jërëjëf. jërëjëf Serigne Modou mbay xam naa nekkoon suñu premier invité suñu premier numéro suñu rubrique leeral askan wi tey nag ñu fekkoon ko bërëbam di waxtaan ci secteur am muy transport dégg ngeen wax ju am solo ji mu ci wax di fàttali moom moo jiite. Euh, lii de association de chauffeurs et transporteurs euh, urbains de Touba kon ñu ngi koy jaajëfal ci euh, traitement yu am solo yi ci question divers yi nga xam ne nii traité nañ ko fii muy transport bi actualité bi troisième mandat bi et cetera ñu ngi leen di jox dox daje beneen jataay ak beneen émission leeral askan wi jërë ngeen jëf ak L24 TV.